jamaxanaa yal na nu boole allahu yàlla bihim ak ñoom yowmal xiyaama ci bisub penc ba bisub taxawaay ba mooy bisub penc ba tasawuf mi nga xam ne ci laa bëgg a taalif nee na fekk naa boroom xam-xam yu mag a mag ñu taalif ci ay téere yu rëy rëy yu ëmb ëmb ay secret niki al imaamul Ghazali taalif na ci lu bari ibnu Ataillah al Iskandari noonu Sidi Muxtaar ak Kunti yi mi nga xam ne xutbu la woon xawsu la woon ba tey noonu ku ñu wax Muhammad al Khalifa moom it noonu ak ad Daymaani te turam dëgg-dëgg nekk Muhammad moom da caa boole woon sax di firikatu al Quraan moom it taalif na ci tasawuf ak ñeneen ak ñeneen ci sëriñ su baax si nga xamee ne dañuy ñaan rek bu ëllëgee ci bis pénc ci yàlla boole noog ñoom laakin na maa kutubuhum waaye seeni téere zahida dëddu na fiihaa ci ñoom jullu haadal jiili li ëpp ci gileeg maas li tooli ngir gudd ga waaye mu ne ñooñu seeni téere la muy rëy rëy ak la muy yaatu yaatu ak la muy bari bari ay secret li ëpp ci waa jamono ji sawaruñ ca ndax téere yi daa gudd waa jamono ji sawaruñ ci jàng téere yooyu fax fartute ma tànn dastihaanatin mbir may boroomuk sàkku ndimbal bilwaa lii ci kilifa gi nadmal lazi way la nga xam ne nataraxoo wesaroon na ko al yadaali yadaali li jam hihi njurug booleem jami xamaam booleem la nga xam ne li salafi ñeeloon na dawal ba bi kaw ni hiic ak nekkam xaatimatat tasawufi di mottalikaayu tasawuf bi nga xamee nag gis naa ne waa jamono ji sawaruñ ci téere yooyu ma dëgmal saa boroom nag ñaan ko mu dimbali ma ma way wesaru alyadaali ndax da ko tudde xaatima jublu ca mottali tasawuf mel ne ëmb na njëlbeen ga ba ca mujj ga nga xam ne soo ko wayee rek day mel ne way nga lépp tasawuf baa boog way nga la ca ëpp ma ñaan saa boroom nag mu dimbali ma ma way wesar woowu ndax gis naa ne moom mboolem la nga xam ne moom la ña ko jiitu tasaare woon ci seeni téere mel moom rek la muy gàtt gàtt ëmb na loolee lépp kon su ma ko wayee rek day mel ne way naa lépp tasawuf mbaa la ci ëpp yàlla it daal ma ciy dimbale fa jiitu ma dikkee fii ci moom bi kitaabin ci ab téere xadd xawaa boobu làq na shifa aman saafaras ka nga xam ne asqama ragal na xalbaxoo xolom alhawa bànneex yàlla may ma ci ndimbalam akum baaxam ma way wesar woowee muy téere bii nga jàpp mu ëmb lépp loo xam ne mooy faj xol bépp xol boo xam ne topp bànneex da koo taxa asaro koo taxa wéradi da koo taxa amee jàngoro boroom xol bu demee nii ba jàngee téere bi daal di xam lay faj xolam ba mu wér nazman aw way yarul mu oo dana yewenal xaala kulli mubtadin mbirum jëpp aji tàmbali wa xaala muntahin ak mbirum aji egg isaalam yaxsut ndeem añaanut id ngir alxasoodu ab añaankat laysa zantibahin diir muy boroomuk jariñu bi fadli man ci ngëneelu ka nga xam ne xaasara jamononte naag moom bitti baa ci topp wala yasurruhu te du ko bégloo madal azmaani diirub jamono ya siwaa xalaakihi ndare alkoom nga bila tawaanin ci dul yeex aha dana yal nanu doolee musal allahu yàlla min alxasoori cib añaankat wa kulli mubghidin ak képp kuy aji bañ wadil juhóodi ak boroomuk weddi kii door a jóg di sóobu tasawuf di ko jàng ko jéem a jëfe ak ka nga xam ne yaakaar na ne àgg na ñoo ci yemoo ku añaanul rekk man cee jariñu añaan nag moom nee na mooy tee jariñu ndax nit ku añaan mën naa bokk ak ku baax jamono mën a jariñu ca moom waaye kañaan ga day tax du jariñ ca moom du bëgg sax lu may rek waa ju baax jooju daal di génn àdduna fa saasa ndax rek mu bañ a déggati aw turam muy kuy door a sóobu yoonu tasawuf ak muy ku dem ba defe ne àgg na ñoo ci yemoo bu añaanul rek mën naa jariñu ci téere bii mu ñaan nag ne yal nañ yàlla musal ci képp ku añaan ak képp kuy bañaate ak képp kuy weddi loo xam ne wóor na ko ne dëgg la axyeetu dekkal naa fii ci téere bi maa lépp loo xam ne ama taxoo rayoon na ko alwara mbindéef yi minal xuloo mi ci ay xeeti xam-xam idaharahum ba mu leen gaaree alkara gëm leen la ne lépp lu nit ñi fàtte woon ci xeeti xam-xam yu am njariñ rawante na ci wàllu tasawuf gi mu ko taalife lu ci nit ñi fàtte woon mel ne ku ko rey rek indiwaat naa ko ci téere bi yeesal ko mel ne ku fekkan lu ñu rey ba mu dee ma dekkal ko kon lu nit ñi fàtte woon ci xam-xamu tasawuf andi naa ko ci téere bi leeral ko bañ mën koo fàttaliku mel ne bu nit ñi tolloo ci ngëlëmteeg réer dañoo rayoon googu wàll muy tasawuf mu ne waaye dekkal naa ko rek ba ku ko soxla man cee jariñu la al lën yi ndax lee man ujju saa def na ma faye xadan ci ëllëg bil xusna ci àjjana ma al yadaal yi ànd ak al yadaal yi fil maqarri ci saxukaay ba al asna ba gën a yëkkati ko mi ngi yaakaar nag way gi way wesaru al yadaal yi moomule yàlla nangu ko te bu ëllëgee yàlla bool leen faye àjjanaam ja nga xam ne moo féete kaw ci àjjana yi ak fañ ci gën a taamu ca àjjana joojee wa atul bu danaa sàkku ak daawata ñaan nga mi mën ci képp koo xam ne nabara xool na wa min mutaalihin ak ci ajir fa ahra rawante naag man koo xam ne xaraa jàng na xaraa moo fi nekk waaye xaraa moo doon cosaan wa kullu man képp koo xam ne nabara xool na fal ya doxu na ñaan danaa ñeel nu bi xëyrima ci ngën ji la nga xam ne yudd xaa def na ko ñaan li xab di ñeel ab jaam ahsana bopp rafetal na iddi ngir addu xaa ñaan yan faamu dana jëriñ maytan ab néew fil xubóori ci bàmmeel ya wa yan faamu te muy jëriñ alxayya aji dund ja wa yoo jibu te muy waral ak ujoora yool ya maa ngi sàkku nag képp koo xam ne sa bët tegu na ci téere bi rawante na nga yër ko rawante na sax nga di ko jàng kum doon rek ci ñooñu maa ngi ñaan mu ñaanal ma dama ñaanal la gën ci lañuy ñaanal ku def lu baax la gën ci lañuy ñaanal ku def lu baax nag mooy mujj gu rafet ngërëmul yàlla li sëñ bi faral di waxee saxaadata daare ni maxa kifaayati xàmmay ximaa maanaam mucc ci lépp lu gënut ci àdduna ak alaaxira te am lépp yiwu àdduna ak alaaxira amul ju rafet ak ngërëm yooyu moo gën ci lépp lu ñuy ñaan muy sàkku nag képp ku gis téere bi mbaa nga yër ko rawante na nga di ko jàng rek nga ñaanal ko loolu ndax nee na ñaan ci boppam yàlla da koo fonk lool ba ku baax ka wax ne ñaan moo yëquk jaamu yàlla adduhaa u muxul ibadati yuq ñi nga xamee ne moom la selle te néewe ko ci biir ndawal noonu la ñaan mel ci biir jaamu yàlla yi ne ñaan ñépp la amal njariñ kiy dund ak ka faatu ba nekk ca bàmmeelam sunu borom moo ne ñaan leen ma ma may leen mu àgg itam ci ku ko ñaanut mu mere la te itam boo dee ñaanal koo xam ne sa mbokk jullit la te nekku fi yàlla day nangu ñaan nga defal ko loolee nga koy ñaanal defal la ko yow itam te du bokk ak tuyaaba ja nga xam ne moom lañ lay fay ca ñaan nga moo tax mu ne ñaan day jëriñ kay dund ak ka faatu ba nekk ca bàmmeel ba teyit ñaan day taxa bari ay tuyaaba sa moytuxoo tuddi naa ko masaalikal jinaani sóobukaay yi àjjana mbaa nga ne yooni àjjana fi jam ximaa ci dajale la nga xam ne farraqoo tasaare woon na ko ad daymaani ad daymaani li ad daymaani wesaroon rek moom laa boole way ko tudde ko nag masaalikul jinaan maanaam ay yoon yu ñu xàll leeral ko ku bëgg a dem àjjana man ci aw nag ba ba muy àgg àjjana ci coobare yàlla idi ngir kullumaa lépp loo xam ne nas sa yaxaloon na bixii ci moom fil xaatimati ci alxaatima jiitu dikke naa bixii ci moom fii dal kitaab bi ci bile téere naazimahoo birum bay aji way ko tumma xad axastu topp jële naa mina dahabi ci dahab fawaidan ay njëriñ atmamtu yoo xam ne mottalee naa bihaa ci ñoom laxoo ñeel ko neelu at daw naa nii andi woon ca xaatima rek way naa ko bàyyiwuma ca dara dara ba noppi nag yokkaat naa ci yeneen njëriñ yu bare bari yoo xam ne dama koy jëlee ci fu mel ne téere bi wax ak zahab ndax bëgg rek sama téere bi gën a bari ay njariñ gën a mat bu baax a baax loolu dama asiidu baraana ma dolli fii ci moom baax dama lenn loo xam ne aaxudu danaa ko jàppe min xayrihimaa ci budul ñoom ñaar li takk miili ngir ak matal min kutubil xawmi ci téere nit ñu baax ñi te ixyaaul ulumi niki ixyaaul ulum wa junnatil muridi ak junnatil murid li cheikh ñeel sëriñ ba alkarim bi aji tedd lu bari sax ma yokk ci loo xam ne jëlewuma ko ci dahab jëlewuma ko ci xaatima dama koy jële ci beneen téere ci téere yi gaa yu baax yi niki ixyaaw xuloomi diin bu alxazali ak junnatul murid bu Sidi Muxtaar laakin waaye ida dakartu ndem tudd naa xaala xaala bi damiri ca damir ba faraajihun kon aji dellu la ila alxazali yi jëm ci alxazali yi ashahiri ma aji siiw waxeyruhu ku dul moom min haula ila hurri ci yilay sang u sarrixu danaa wéral al isma turwa la ñeel ko bi dikri ci tudd ne su ma nee xaala wax na te tudd na turu ka wax nga xam ne kon ñi jàng naxu dañu xam ne xaala wax na dañ fi nattale xuma moom mu làq foofu te kenn du ko bindaale su ma nee xaala wax na rek te jaaruma ci turu ka wax xamal ne kon alxasaal yi laa bëgg wax ne moo wax loola nde ku bokkut ak yi moom damay wax ne diw nee na daldi jaar ca turu wa waxay suma zakartu saa yoo xam ne tudd naa law za xultu baatu xultu fa naqaltu kon toxale naa ko min ma aani qawlihim ci max naay seeni wax su ma nee xultu wax naa itam bul defe ne day lu ma sos wax ko day lu ma déggee ca max naay seeni wax daal di koy leeral foofa ndax ñu mën caa jariñu fa kullumaa lépp loo xam ne fii ci nekk na ci moom saxiixun aj wér la utu bita jot saxaleef na ko fa xasin na nga rafetal aw ban na njorot la bi ci moom wa ab bitante nga saxal ko téere bi daal nee na sa yeboo nga rafet ci njort li ma ci indi lépp lu wër-wër la lu doya sukkandikoo wala yasu daka te du mu la dëdduloo boo jàngee wala yasu daka boo jàngee wala yasu duka mooy jaaduwul nag mu lay dëdduloo anil xabwoon waris nangu ga kaw nii sama nekk xasiiral baax di aj gàtt ab jéego fii dal jiili ci gileeg maas wala yasu daka te bëgg la dëdduloo mbaa wala yasu duka jaaduwul nag mu lay dëdduloo madal asmaan diiru jamono yi xan ak di yi walis ak jàppam kaw nii sama nekk mina suudaani di bokk ci ñi ñuul ñi id ngir akramul ibaadi gën jaa teddi jaam ña indallaahi fa yàlla ak sarufu mooy gën jaa bari ci ñoom taqwan ragal yàlla baa nga ne ak sarufu mooy gën jaa bari seen taqwan ci ragal yàlla bi res ci baaxin ci lu dul lënt te it fa lay sa yoo jibu du waral sa waajul jismi ñuul yaram safaaxatul fataa desee dik cam sa wasu al fahmi ak ñaawuk dégg ne dafa am ñoo xam ne buñ déggee ab téere buñ taalif dañu njëkk a seet ba xam ka ko taalif mag la mu siiwa siiwam déet bu fekkee ne du mag daal ku siiw ku ñu xam rek ñu defe ne kon téere ba du am solo mu ne loolu nag bu mu la dal ci sama téere bii na nga ko fonk rek yër ko ba gis li ci nekk waaye bul ne magu fi rawu fi ab téereem du am solo daal di koy bëgg a wan gannaaw ba tey nee na it boole gi ma yàlla boole ci ñu ñuul ñi ma amee der bu ñuul ba mu tax nga ne ah borom der bu ñuul de moom ab téereem du am solo ndax suñu borom mi nga xam ne moo sàkk jaam ñi moo waxal boppam ne gëm ko te ragal ko rek la soxla ci ab jaamam xoolu ca leneen inna akramakum indallahi atqaakum teg ca inna allaha alimun xabiir dagam suñu boroom nee na nag jaam ñi ñépp ay jaamam lañu ku ci gën a ragal yàlla rek yaa gën a tedd dafa moom kon yàlla amul soxla ci weex ak ñuul mbaa rëy mbaa tuuti mbaa gudd mbaa gàtt soxluwu ci ab jaamam lu may rek gëm ko ak wéetal ko ku ci ëppale tawxiit ëppale ci ragal yàlla rek daldi gën a tedd fa moom sunu boroom te mu ne it amee der bu ñuul rek taxuta gàttum xel taxuta ñaaw dégg mooy ba doo mën a dégg mbir yi na mu doon dëgg-dëgg déedéet der bu ñuul rekk teewuta rafetum xel teewuta rafetum dégg kon nag bul ne ki taalif téere bi daal nit ku ñuul la rekk daal di wan gannaaw téere bi wala tadda te bul bàyyi nazmiya sama wayi yaa nabilu yow aji xellu ji li adamit tibaaxima ngir ñàkk a topp la nga xam ne aqulu danaa ko wax dafa woyofal boppam ñàkk a gis dara ci boppam tax mu ne man mi taalif nag ñàkk gu ma ñàkk topp li may wax bu mu tax nga tàyyal ci téere bi déedéet jàng ko bu baax te jéem a jëfe rekk fekk na daa wax rekk noonu wax yun woyof lu waaye moom jëf naa jëf moom ci boppam ba jëf lu ëpp li wax ci téere bi wala tuxasis te bul jagleel fadla rabbin gëneelal ab bóor xadd xalaa bopp kawe na bi di taqaddumin ci boroom ngu jiitu faqat dong fata jixala kon da nga réer id ngir rubbama uri baraana bu wanee fee fatan ascam mu wax xaran su di suñ yeexe maanaam ko yeexe ñëw ci jamono maa loo xam ne raaba fàddu na xam man walis nga nga xam ne xabalahoo nekkoon na ci njëkkam wa xasura te mu jafe ñoon ko bul ne it kat yàlla moom ngëneel lam daan joxe jox na ko ña jiitu woon ba àggal ñi nga xam ne ñoo yeex a feeñ ci jamono yàlla joxu leen lenn ngëneel déedéet bul wax loolu ndax ne nit mën naa yéex a ñëw ci jamono yàlla wan ko loo xam ne ña ko jiitu woon bëggoon nañ ko di ko seet te mënuñu ko woon a am moom mi yéex a ñëw ci jamono nag mu soog yàlla rek mu baaxe ko loola kon nag jàppal ni ngëneel lu yàlla moom du jeex mukk mukk ku ko soob itam rek mu jox ko ko mu di ñu njëkk ña mu di ñu mujj ña ku ko ci soob rek mu jox la ngëneelam bu ñu dee àttee ci mbooloo yi moom lu jiitu rek te gëm gën a baax gën a dëg ma ngërëmul yàlla lu gën a yeex mu jëfee jamono gën a yemaay ci bu ñu dee àtte ci mbooloo yi waaye nag bu dee ci benn benn yi moom yàlla mën naa yeex a feeñal nit ci jamono te defal ko loo xam ne defuñu ko sax ña ko jiitu woon ni mu ko ko defale moom sëriñ bile fa tallu mësëy ma xat jab doo amaana mu feeñ amaamal wabli ci njëkk waame wa wal fadlu te ngëneel la lil waabili ñeel na waame wa laa li tolli déet muy ñeel mësëy ma te falaatanaasa bul fàtte fàttelu xiina tas dër yi ci waxtu wa ngay xeeb nazmi sama woyi nas sa xadis yi yaxub addis ba ne woon ummat yi sama xeet wi kal matari mi ngi mel nepp taw laa yudra awaluhoo xayrun am aaxiruhoo li mu la wax ne la nit mën naa yéex a ñëw ci jamono te yàlla may ko lu maytoon ne ko jiitu la ne jiitu rekk taxuta gën ndax boo ko di seet taw bi ñuy wax mësa yi mbaa boog wicc wiccal muy taw bu tuuti boobu nga xam ne mooy jiitu léeg-léeg waame door caa topp taw bu tuuti boobu di wicc wiccal jiitu gëm jiitu njëkk a ñëw taxul mu amee ngëneel la taw bari ba nga xam ne moo ca topp muy waame wa moo amee ngëneel la way woowu mi ngi ci maqaamaatul xariir yi da ko indi foofu rek defal la ko misaal ci li mu wax mu ne itam boo dee xeeb sama téere bi ngir ne rek ki ko taalif moom daa yéex a ñëw ci àdduna bul fàtte kat addis boo xam ne ummati kalmatar jàll wax ne sama xeet wi daa mel ne taw ab taw bu ñu xam njëlbeen ga moo gën ak mujj ga moo gën addis boobu wane na ne ngëneelu yàlla ku ko soob rek la koy jox muy ku jëkk muy ku mujj nazamtuhoo way naa ko nasihatal ixwaani ngir laa biire mbokk ya arjoo danaa yaakaar bihaa ci moom arrida ngërëm la la darrahmaani fa aj yërëme ja taalif gi ma taalif téere bi moom bëgga laa biire sama mbokk jullit ñi rek moo tax maa ngi yaakaar nag yàlla nangu laabire gi fayema ci ngërëmam wa ajutat yi danaa ñaan allah yàlla man nga ne wa ajutat yi danaa tablu waaye tablu moom ñaan benn lañ allah yàlla rab yi kay sama boroom wa huwa te mbir moom moom karimun aji tedd la taqabbulal amali nangu jëf ya min naa ci nun wa aroomu te danaa sàkku gufraanahu njéggalam wala faxu ak ñëwanteem war raxmata ak yomaane ja xonaa fii ci àdduna waxan naa ak foofale ci àllaaxira li jamihil ummati ñeel mboolem xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla day moom nee na ku baax a baax la lu ne mën na koo maye maa ngi koy ñaan nag kon mu nangul ma lépp lu ma jëf maa ngi sàkku ci moom it mu boole njëgalam ak ñewanteem ak yërmandeem defal ko mboolem xeetu yonante bi fii ci àdduna ak foofee ci alaaxira wa arjoo danaa yaakaar bihaa ci laabire gi ma laabire xeetu yonante bi xobal malaa jubub mbooloo ma maa ngi koy yaakaare minhu ci moom yàlla jàll màgg na wax wa te mbir moom moom du fadlin borom ngëneel la xalaa xibaadi fii ci jaamam ña maa ngi dellu di yaakaar ci saa boroom téere bi ma taalif di ci laabire mbokki jullit ñi mu may ma ma amee ci jubub gaa yu baax ya nga xam ne ñoo jiitu woon te yàlla kat moom ngëneelam xam naa ne lu yaatoo yaatu la te ay jaamam rek la koy jox kon nag maa ngi sàkku ci moom taalif gi ma taalif téere bii mu maye ma ci jub gu tol ne jubub ña jiitu woon te ràññe ko ci njub wa arta ji maa ngi yaakaar min hu ci moom aydan ba tey kaw na nizaami nekk way wa junnata xaari iihi di pakkuk way jàngam xan kulli malaamin walis gépp yaraange junnatu pakk mooy luy aare mooy kaaraange rek maa ngi ñaan ci yàlla téere bii mu defal ko mboolem ñi nga xam ne ñoo koy jàng muy seen kaaraange ba duñu am yaraange fii ci àdduna duñu am yaraange foofee ci àllaaxira wa kaw naxoo ak nekkam mun jéenaa di aji musal sunu fil xabri ci bàmmeel min fitnatin ci fitna wa xawli yawmil xashri ak tiitum bisub pang ba maa ngi ñaan yàlla téere bii bu mayenu ci mucc ci lépp luy fitna buñ duggee ci bàmmeel musal lu itam ci lépp luy tiit ca bis penc boobee wa an yakuna ak mu nekk jaaliban nuuray ni di aji ñoddi yaari leer yi lanaa jëme ci nun bi fadlillahi ci ngëneelu yàlla fit daare ni ci yaari kër yi wa an yas yi danaa ak mu dolleenu moom yàlla taxalaa kawe na aydan ba tey hudan jub wa irfaanan ak ku xàmmee bihaa ci laabire gile wa faydan ak ku dëbb wala baabaanuk may maa ngi ñaan suñu boroom mu may nu ci téere bii leeruk àddunaak gu alaaxira maye nu ci itam lépp luy ak njub ak lépp lu di xam yàlla ak lépp luy may baawaan ba atul bu dinaa sàkku min ci moom aydan ba tey asalaamata mucc ga minal roda ili ci caay-caaya ma almalaamati ànd ak yaraange maa ngi sàkku ci yàlla mu may nu mucc ci lépp luy xeetu caay-caay maanaam lépp luy teye jaam bi ma nekkub sangam muy yàlla ak lépp luy indi yaraange ci àdduna ak àllaaxira maa ngi sàkku ci yàlla mu may nu nu mucc ca warum tu sàkku naa min fu ci yàlla al istiqaamata jub ga abadan faawu fii sunnatil muxtaari ci sunnas kañu tànn xëy di man bay ngën jikka nga xam ne xabada jaamu na yàlla salla yàlla na dolli tedd nga wa sallamati dolli wóolu alayhi ci moom allahu yàlla wal aali ak ñooñ ña wa sax bi ak saxaaba ya wa man ak képp koo xam ne xafaahu xeñtu na ko ne maa ngi sàkku ci saa boroom mu may nu jub xocc rek sax ci sunnaam moom ku baax ka mu daal di koy ñaanal yàlla dolli ko te daanga ak jàmm mook ay mbokkam ak i saxaabaam ak képp kuy jéem aw ci fañ awoon aha gannaaw yàlla na nu musal allahu yàlla bi xutbil ambiya ci kilifa yonante ya min charri iblis ci ay iblis raisul ashqiya yi muy kilifa way texee di ña wa xëyri yi ak ku bokkut ak moom min kulli man ci képp koo xam ne tamarrada féeteerlu na wa charri xaasidin ak ayu aji añaan ida ma xasada ndéem jëfe na kañaan ga wa charri aynin ak ayu bët wa kalaamin ak ayu wax min basharin bàyyi ko ci mbindéef wa kulli xaa'isin ak jëpp aji làq daroon lor minal xalqi ci mbindéef yi maa ngi ñaan suñu boroom ci daraja yonante bi mu musal lu ci ayu iblis buñ jiital ñooy dem ca safaan bi ñëpp rek mooy seen jiit yàlla na yàlla musal ci ayam musal lu ci ayu képp ku fettéer lu bañ a topp musal lu ci ayu képp ku añaan tey jëfee kañaan nga musal lu it ci ayu bët ak ayu làmmiñ musal lu ci ayu képp ku amee aw ay rek ci lim sàkk moom yàlla wa atul bi danaa sàkku minhu ci yàlla jàlla màgg na wax wa te mbir moom moom xaadin aji faj la li watar yi mën ñeel aajoy ka nga xam ne am mahoo jublu na ko daa rabatin mbir mi boroomu xemem minal bashari ci mbindeef yi maa ngi sàkku ci moom ay yunjiya bu musal ku la man képp koo xam ne xaraa jàng na xaraa mooy cosaan kitaabanaa suñu téere bi aw xat tadabbara wala mu settantal fii ci moom aw naalaxoo wala mu am ko du milkin ci ak moom aw ijaaretin wala ak yooloo aw bi kitaabatin wala ci bind aw istiaaretin wala ak àbb bi jaahi hibbinaa ci daraje sunu soppe ashafi kay aj ramoo ahmadatu mooy ahmad sàlla yal na dolli tedd nga wa sallama te mu dolli wóolu xalihi ci moom sarmadan faw wa alihi ak ñoñam wa sahbihi ak ay sahabaam wa kulli man ak képp koo xam ne iqtafa xeñtu na asaarahoo ay jeex itam ay saawoom mooy fam awoon rek ilaa yowmil fitani ba bis fitna ya yàlla mi nga xamee ne ku ko dëgmal te dëggu nga faj sa aajo maa ngi sàkku ci moom rek képp koo xam ne jàng na téere bii yàlla musal ko